sëriñ Basiru moomu noon a xamal ñi fi sëriñ bu baax bi fi newoon ba ñëpp xam na kenn la yow paate jëng def ci bayit laa la digal wutal kayit te soo noppee ma ko yoon fi rasen lu yomb la Seex Ibra Faal bi laay xamal ñi ko xamul ñoom laay xamal na sunub sëriñ moo to jabal tamit tuur ci ay jikkoom yoo xam ne war na jëpp doom di nekk di ko roy ci moom ndax mel ni moom lu jafe la moo bari diine bari ngor bari xam-xam te mën ta war ñimeeb dogal xam la ko war wuute wu la kun la kersaaki taggil moo kaam te mën wala renel naam du xeeb du naw mbooloo mi monsieur le ministre nee na asalaamu aleykum wa rahmatullah ginnaaw ba nu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi. ñu ngi sant suñu buntu ci lislaam xaadim rasulillahi. ñu ngi sant suñu buntu ci lislaam xaadim rasulillahi. di ñaanal sëriñ Muntaxa Bachir. di ñaanal ki toog ab jataayam muy sëriñ Muntaxa Bachir. yàlla yàggal ko fi lool. yàlla yàggal ko fi lool te may ko wér amin ba mu àggale mboolem ay naalam ci yoon wi. sëriñ bi sëriñ Bass. Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke ibnu borom Daaru Muxti président Macky Sall. noo ngi lay andil nuyoo sa taalibe sa doom le président tous les sénégalais monsieur Macky Sall. bi ñu yebal ci bés bu màgg bi. bi ñu yebal ci bés bu màgg bi. ñu ànd ci ak délégation bi. ñu ànd ci ak délégation bi. ñu ràññee ci ñoo xam ne ci kër gi lañ bokk. ñu ràññee ci ñoo xam ne ci kër gi lañu bokk. muy monsieur le ministre monsieur le ministre Mamadou Diagne Fada. monsieur le ministre Mamadou Diagne Fada di doomi Darou Mouhty. ànd ci ak préfet du département. ànd aussi ak sous préfet bu l'arrondissement de Darou Mouhty. ànd ci nga xam ne ci kër gi la dëkk muy monsieur le maire Madiop Biteye. ànd aussi ak le l'édile de la ville muy le monsieur le maire Biteye. ak au conseil ak maire commune yëpp. ak bés bi woote woo ko. xam na ne bés bii kat Mbàkke woote woo ko. topp nga ndigalu Serigne bi Serigne Mountakha. ndigal li ci Serigne Mountakha joxe woon topp nga ko. ndax li fi xew muy pandémie bi. ndax nga xam ne moo lëmbi jamono muy pandémie bi. waaye nag xam na ne. waaye nag président xam na ne. bés bii bés bii. bés bu màgg la. bésul borom daaru la. bésul borom daaru moxti la. muy bés bu màgg ci lislaam. muy bés bu màgg ci lislaam. kon mënut a ñàkk. kon président ne mënut a ñàkk. mu yebal fi délégation. mu yebal fi délégation. waaye woon bu dul woon ko pandémie bi ñu nekk délégation bi dana gën a moo tax mu ne ñu egsi. moo tax mu ne mbàkkeen waag si. siyaare la. siyaare la. yow ak yëpp. yow ak mboolem njabootu borom daaru moxti gi ñu fekk. kii nga xam ne mooy sa jëwriñ yor kàddu borom daaru mooti muy sëriñ Basiru Mbàkke ibnu Salaam dul Xudus mu siyaare la ci bés bi ndax xam na ne bis bii kat di màggal daaru mooti bésum ñaan la ndax li histoire wax ci bis bi li ci daje rëy na lool ci lislaam waaye nag rëy na ci yoon wi borom daaru itam mii tax ñu def bis bii ñëpp xam nañ taxawaayam ci yoonu murit moo tax président njort ne lépp lu nu fi ñaan sunu borom mën na ko dogal koo tax moo tax mbakke ñu ne nanu agsi ginnaw bu la président siyaare ñaanal la yan bii nga xam ne moom nga yenn muy jotaay borom daaru moxti sunu borom defal la ci ndam amin ya rabbi yàggal la fi ginnaaw loolu président mi ngi sàkku nga ñaanal ko nga ñaanal réew mi jàmm am na fi waaye jàmm ji dolliku xiirtal njaboot gi ni ko borom daaru daan defee ci liggéey ak jaamu yàlla ndax xam na ni ci loolu rek nga nekk kon nag boog wax ji du gudd dafa mënu woon a bañ yónnee moom président waaye tànk yi Mbàkke jàppal ne tànk yi sàkku ñaan la ci moom président waaye tamit ci réew mii yàlla yokk fi jàmm noo ngi lay siyaare bu baax Mbàkke lottu naa nag ci jotal président nuyoo bi ni mu ko bëggee woon waaye cab tënk daal Mbàkke noo ngi lay siyaare di sakku ñaan ñaanal la nga yàgg ci kanam njaboot gi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbooloo mi sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi nuyu ministre bi. sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ministre bi. Dame Diop ministre Dame Diop. ñi mu àndal. ak mboolem ñi mu àndal. ñu jiital ci Cheikh Abdou. ñu jiital ci Serigne Cheikh Abdou Bali. ak préfet ak sous-préfet. ak préfet yi ak mba mboolem bokk yi le président Modou Diagne Fada. ni ko ministre bi limee woon léegi. ni ko ministre woon léegi. ak monsieur le maire Madio bi tey ak Serigne jiili Mbacke moom Serigne Cheikh Assou Faye ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ànd ministre ñëpp. ba ci madame la conseillère Oumou Ba. mboolem ñi nga xam ne. mboolem ñi nga xam ni. ministre bi indiwaale na seenum nuyo ministre bi indaale na seenum nuyoo fii. ginnaaw nuyoo président. ginnaaw nuyoo président de la république. ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy nuyu. di ko delloo nuyoo sëriñ bi. di ko delloo nuyoo sëriñ bi. di ko sakku. di ko sakku. mu jot li nuyoo boobu. mu jot li nuyoo boobu. ki nga xam ne moo ko yabal. ki nga xam ni moo ko yabal. muy président de la république. Euh, li ngeen def day. sëriñ bi ne li ngeen def day. jëlee ko ci ndigalam. jëlee ko ci ndigalam. Hmm, dafa am lu muy tekki. nee dafa am lu muy tekki. ndax kenn ku ne xam na ne. ndax kenn ku nekk xam na ni. Hmm, sëriñ bi màggalewul nañu daan baaxoo màggale. sëriñ bi màggalewul nañu daan baaxoo màggale. Hmm, rawatina di ci boole. rawatina di ci boole. Euh, gouvernement wala état. gouvernement wala état. ndax su boobaa. ndax su boobaa. xam nañu nañu ko daan defee. xam nañu nañu ko daan defee. mooy tàmbalee ca CLD ya. mooy tàmbalee ca CLD ya. muy àgg ci CRD. ba ba muy àgg ci CRD. ci ndigal rek la ko teg. loolee mooy dox ba ci moom. nee loolu mooy dox ba àgg si ci moom. mu wéyal ko rek ci ndigal. tax ma ne nag. nee li tax mu ni nag. li ngeen def lu am solo la. li ngeen def lu am solo la. dafay mel ni. seen dikk gi. ginnaaw bi ñu santee monsieur le ministre ak ñi mu àndal. nee ca cant googu le président ëppale ci. nee ñu jotal ko bu baax itam cantuk sëriñ bi. ci seen dikk gi. ak teraanga ji ngeen àndaaleel. ndax itam. nit koo xam ni. dafa nekk ci loo xam ni. xam nga ni itteel na ko. waaye am na gàllankoor. nga ni naa ñëw doon bis bi tëddeewul nam daan tëddee it waaye tey mooy màggalam gi njëkk mu nekk borom daarul moxti xam nga loolu taarix daf koo war a mën a nettali kon nag ku ko fekkee war nga caa mën a feeñ muy benn ñaareel ba mooy lii ngeen def fii réew mi toll ci ay jafe-jafe ci ay tàngoor ku ñu wax ni yaa jiite réew mi wala am nga ci lenn soo séenee bis bu mel nii dafa war a mel ni ak jur goo xam ni dañoo seen xur wu naat ñax mu rafet ne fa ndox mu baax ne fa ñu njëkkante ca dund ca ne kon nag xam nga ni ku yilif réew mi bis bu mel nii ñëw ak nu ñu ko mën a tërale nii ngeen ko defee day am na yaakaar lool ndax yaakaar ni ku ñëw ci barab bi di fàttali ku borom daarul moxti ak Serigne Touba seen mbégte moomee nga xam ni moom la ñu am ginnaaw bi Serigne bi demee ba ñëw ca seen jataay boobee jàpp na ni loolu kat am xel la kon nag ginnaaw bañu leen ci sante ci tuuru sëriñ bi rafetlu defin wi ndax yëg ni sëriñ bi lii kat mooy màggalam gu njëkk te yàlla na ci yeneen topp yu baree baree bari amin nee te li waral mu mel nii suñu borom jëlee ko fi ba kenn ku ne tal ko mën a feeñal sa yéene mën a feeñal sab taxawaay loolu daal jàpp na ni mooy li nga xam ni mën nañ koo gis ci yoon wi rafetlu ko jàpp ni xel moo ko lal ngir gis fu xéewal nekk nga ni naa dem xewlu ca te lu mën a nekk la nag ndax barab bi bari na lu yëngatu ci réew mi nee te fii la jóge Serigne Ahmadou moom Serigne Modou Moustapha nee dafa xamul ndax Serigne bi fàttaliku na koom déet nee mas nañ faa dem ci màggaluk daarul xuddoos nee na booba dey mbooloo ma xaw naa sakkan nee kilifay daaru moxti yi ca manki bëriwul ñuy wër kër yi daarul xuddoos yëpp bañ fa yeggee ci biir mbégte ma àgg na ci wax ni Cheikh Mouhamadul Moustapha daana leen wax ni na ngeen fonk daarul moxti ndax bari na lu yëngatu te foofee lay jóge di daarul moxti nee na noonu yi rek la ko waxee nag bari na lu yëngatu te foofii lay jóge kon bis bii yaakaaru na lool yaakaar ji nag yàlla bu mu tas xanaa yóbbante la ci président rek sëriñ bi ni nga ko xamee tey jii di màggalam gu njëkk mu nekk ci ñetti weeram yàlla dogal na yàlla dogal na toogagut ak ñi mu war a toogal ci bokk yi ak njabootam gi won leen yoon wi mu war a jaar ak ni mu nar a liggéeyee li ñu tuddee feuille de route te defagu ko waaye bis bu ko defee ñëpp danañu xam naka la bëgg a liggéey naka lay ànd njaboot gi su boobaa nag lu cey seen wàll ngeen taxawee ko ba mu mat ndax nag fekk na fi loo xam ni jiitu na ca Serigne Cheikh Khady jaar ci Serigne Abbas ay mbir yoo xam ni ak li mu ciy dollil boppam dina ci am yoo xam ni ne munu njël munu leen caa ñàkk doon dara waaye loolu lépp nag day fekk ne. dajale na njaboot gi wax leen li mu bëgg ak ni mu ko bëggee ak ni ñu koy defee su boobaa kenn ku ci ne jël ca la cay sa wàll nee na kon loolu itam nañ ko xamee noonu jotal ko kilifa ga xamal koy nag ni ko sëriñ bi ndono lim fi fekk dafa fas yéene lum ci fekkoon mu rafet da koy gën a rafetal rek képp koo xam ne jàppoon nañu la nee da lay gën a jàpp rek waaye lépp nag tegu ci dëgg te tegu ci rafetal àndin woo xam ni kenn du jëppee loolu nag bokk na ci la koy maye nee ko moom président bu mu déglu benn benn kàddu boo xam ne ci sëriñ bi la jëm te du ko wóor ni ci moom la jóge bari na loo xam ndax bari na loo xam ni la koy sikkal nee ci diggante bi lay jógee nee na loolu xamees na ko ci kër sëriñ bi nee li mu bëgg a wax mooy kilifa gune xam nga ne bari na loo xam ni ña nga la koy waxal ca biti nee te yëgoo tinoo moo xam kilifa diine la moo xam kilifa àdduna la moo tax nee bu kumpa rek am ci diggante bi ñi war a yëgoo daal nañuy def li Serigne Touba waxoon yàlla yëg adduna yëgoo su loolu amee rek lii rafet lépp day gën di rafet te nag lu mel ni euh, nee lu mel ni Serigne Cheikh Abdou mii nee waxoon nag ko keroog ca Daaru Manaan ni ko koo xam ni euh, fa ñuy séddalee ne da nga faa toogal ay bokk te nag am ca cër bu mat sëkk nee na loolu kat day dalal xel nee na moom mi kat da koo mos a wax ci jamono bu yàgg ndax moom dafa yaakaar ni ragal ak jaamu yàlla ragal ak jaamu yàlla sunu borom rek lañ ko war a def nee mu wax ko ci ay jamono rahmatullahi alayhi sëriñ Modou Maxtaar mii tey ba ñu ko joxee loo lii ñu ko joxoon. nee moom kat mu wane ni. daa mel ni la ñuy séddale. doyut nga am ku la fa toogal. di la jëlaaleel sab cër. di la jëlaaleel sab cër. waaye am na fa rajo boo xam ni. moo gën a mag ci rajo yi. moo gën a mag ci rajo yi. waaye loolu da koo dagg. ayut. nee na ayut ndax li ñuy séddale. yow nga war caa amub cër. boo fa amee ndaw kay sa xel war naa dal. nee na noonu yi rek la ko waxee woon nee na loolu yi lay dellu waxaat sa kanam te ci dellu ginnaaw mukk ndax itam sëriñ bi lii mu am bu ñu xoolee màggal gii daaw lii sax amu ci woon màggal ya ko jiitu woon bisub tey bii boo fi mosoon a ñëw ci waxtu wi doo am foo teg sa tànk ne kon xam nañu ni loolu am na lu ko waral loolu ko waral nag mooy li am solo mooy sëriñ bi daal diggam ak Cheikh Mouhamadoul Mountakha lépp leer na doy loonte gaa ngi fi jàppante gaa ngi fi dundal liñ fi fekkoon a ngi fi na loolu na ko président xam bu baax nee bu la kenn ni bu ko kenn ni sëriñ Bassirou Anta Niang sëriñ Mountakha lu dul li waroon a jaar diggante borom daarul moxti ak Serigne Touba moom rek moo jaar seen diggante ku ko wax la neen nee bu mu gëm loola loolu yi rek mooy li am nee lu mat a wax la nag ndax sërite yi day bari lool sërite yi day bari lool nee kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax ministre nee nag ne gam mooy sunu kilifa ci wet gi yàlla dugal ci àdduna ñii sunu kilifay diine di sunu yaakaar yi tey ak ëllëg nee dafa war a leer kenn ku nekk xam yoon wi ngay jaar yoon wi nii jaar daal ne ko nee mooy sëriñ Bassirou Anta Diagne mii mooy sunu borom daarul muxti nee bu nee weex na ñu ni weex na bu nee ñuul na ñu ni ñuul na su awee penku nu aw penku bu jëmee soow it ñu jëm soowu nee na te noonu nii rek la ko defee ak Serigne Mountakha kon nag li gën a jàppandi. ne ku téye Serigne Bassirou rek ne téye nga daarul muxti gépp ku téye Cheikh Mahamadoul Mountakha téye nga yoonu murit wépp ne loolu nag na nekk loo xam ni lu dëggu lay doon ñu yeew ko fu dëgër ñun daal ku am Serigne Bassirou mii am nga nu ne ku ko ñàkkit ñàkk nga nu ndax sunu lépp a ngi ci moom ndax borom daarul muxti dafa wetti aw ñaqam ñàq nag du réer borom. loolu la defal Serigne tu loolu la defal Serigne Touba ba lépp man fee ne. maslaa mi nga xam ne moo war. maslaa mi nga xam ne moo war. jëflante gi war ak jëflante gi war. ci ci diggante way dundante. ci diggante way dund jamono. loola loola. faaw danañ ko doxal faaw danañ ko doxal. waaye nag ñu teg ko ci kilifteef. waaye nag ñu teg ko ci kilifteef. li Serigne maam Thierno Darou Manane di faral di wax. li Serigne maam faral di wax. nee ni faw man ku ñu yilif laay doon waaye nag fañ ma war a yilife rek de nee na loolu yi la cay teg nee na loolu nag ku ko am da ngay noppalu kon euh, ne nee na kon monsieur le ministre Dame Diop boo delloo nee na nga santal sëriñ bi président ci seen tànk yi ak nii ngeen jariñoo ngi ndax jariñoo ngi ci waaye nag ak yëge ngi ci kon nag loolu doy na sëkk di ñaan yàlla sunu borom yàlla sunu borom yàggal ko ci sunu kanam yàggal Serigne Mountakha ci sunu kanam moom mi nga xam ne mooy ki yàlla teg ci bopp réew moom mi nga xam ne mooy ki yàlla sunu borom teg ci bopp réew mi muy président yàlla sunu borom defal ko jàmm defal ko ndam ndax su ko ko defalee ñun ñëpp la ko defal ndax ñoo bokk nekk ci réew mi nee te moo nekk ci bopp bi kon nañu ko ñaanal jàmm ku koy ñaanal tey wut jàmm nee na ndax bëgg naa ko te wutoo ko ne am ngi nee dana jafe lool waaye bëgg ko wut ko nag yàlla sunu borom mën na la ko yàlla sunu borom mën na koo def kon nii nga xam ni ci fan yu neew ci ginnaaw ak daay gu rëy dafa tàkkoon Cheikh Mouhamadoul Mountakha wis ci ndox mu sedd nee na loolu yàlla na jëm kanam nee te nag ñu jàngee ci lu bari ne day ki nga xam ni moo fi toogal Serigne Touba borom Daarul Muxti da daan wax ni ku fi nekkal Serigne Touba yàlla sunu borom daf lay ruus kon nan ko rus nu itam. nee kon nan ko rus nu itam. lépp lu mu bëgg rek ñu ànd moom ca loola. lépp lu mu bëgg rek ñu ànd ak moom ca loola. te loolu moo feeñ ci bis bi loolu kat moo feeñ ci bis bii ren. kon nag kon nag. ña nga xam ne daal. fii daal lii moo fi ne. yomb ngeen koo jàngal nag. ndax da ngeen cee bokk. ñu dund ko boole ci. yàlla na nu sunu borom defal ndam.